ba fi tey danaa fesal lu doy a xam ci ay wayam danaa xamal xamul mu xam xamal ku xam mu gën a xam ku bëgg a gis te bëgg a xam ne déglu xippi ay bëtam kenn du werante lii ma wax way xam yi xam nañ sama wax digee bor la ñoo leen ko digoon fas nañ ko yéene matale mooy wane kaan yu mag yi nga xamante ni ñoo àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu tànn ci kenn ki nga xamante ni bokk na ca mag ña nga xamante ni ñoo ci jiitu woon jàkkaarloo woon ak sëriñ bi ni ko da nga ni bi yow a yow manit mani la yow a yow ñun nag ñu jóg fas yéene taxaw ni ko yow la yow yow Cheikh Massamba Diarra Mbaye moom mi nga xamante ni moo nu wanal ki ñu xamul woon nu nit ñu fas yéene leen koo wan ngir ngeen mën ko xam ndax ku wanee ku feeñ faawu yow it da nga feeñ loolu la ñu fas yéene feeñal ci gëstu bu yaatu bopp dañu ko jagleel ki nga xamante ni mooy Cheikh Abdoul Karim Samba Diarra Mbaye lépp foo xamante ni jeexitalam mi ngi fi ci biir réew mi dees na fa teg tànk ngir wane ko wane ko ba ñépp gis ko ñépp xam ni kii moo ni woon sëriñ bi yow a yow ñu nit ñu ni ko yow a yow kii ñu giseel moo mat a xam waaye kii ñu leen di wanit ku mat a xamle la nee yonen bi yow a yow mayit ma wax ko yow a bu nee ko yow ma ko yow ki ma gisee la xam buur yàlla may na maw kañam ma di asaanam fa mu di tarjumaani lammiñam ki ma gisee la ma taxam wax na yeneen bi la doon mayin ma wax ko li mu doon moomin mu def ma li doon ki ma gisee la ma taxam bi yow a mayit ma ko yow a yow ko yow ma ko yow ki ma gisee la buur yàlla may na maw kañam ma di xasaanam fu ma di tarjumaani làmmiñam ki ma gisee la matal li le du ci man dafay ngërëm lu war ci man te may gërëm ki ci man ki ma gisee la mata xam mayami yaana dunu xul cofeel gi rew na sunu xol ba duggi reenam sunu xel rootul lu dul wanew taggam am na ci yooyu dunu ko wax am na ci yooyu nun mu ko wax ak ba ko ñooya moonu wax lay daggi xol tey dolli gëm wuutu na saa baya ca la bokkoon te mujj wey fab nu nu ànd moom di foofu la gën a firnde woo ndax Serigne Touba rasulaay daf ko tàmpe xam nga tey jii ngërëm bu la ko sa sëriñ waxee rek bu la nee gërëm naa la rek xol sedd na waaye tey sa sëriñ gërëm la ba pare jël tamponeel la ko ba pare falka ci kaw lalu palam dugal ci xambiri sangam yow ma lastu na ko laaj nu ne ko waaw te defi xaaj booba la door ni nan waaj te dal nu fay yéen yenam sunu yoneen moo njëkke waaw naka ne waaw nu dal ni waaw soppa ki bañ ku ne ni waaw tey dégluwaati ndigalam ruu yi jungaama ndax ragal yi ak cofeel di leen yëngal am na keroog mu ñu xamal xam-xam ba tey lañu ko xam yeneen bi booba lan wan kanam ñi gën booba la woon booba la Cheikh meteel woon murit yi booba lañu am booba la Bamba gañe woon booba la waayam falu woon mbaax gi fi tey booba woon lu ne ci nit ne nag njëkkam booba la Bamba gañe woon booba la waayam falu woon mbaax gi fi tey booba woon lu ne ci nit ne na njëkkam ci penku bi yow yaay njiit ci sowu bi yow yaay njiit ci réew yemin yaay njiit fa gànnaar maam aadamaay bàyyu nit yoneen di bàyyi jullit yow yaa di bàyyi jullit fépp ku gànnaar njàccaar yi ñëw na fi yow gumbay palam tudd ñëw lu bay nataal di la ci dew ba gànnaar te liiwu leen bu dëgër bur yàlla may nanu ndam lu kenn amul noo ko am laa faale gànnaar mbooloo mi na ko yaa fi gën wii waxtu yow lañu fi tin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcce tey yaa hëtte mbiri ba fi tey sàmmal njaboot fi ku la fi fase du say giru bundam ku déglu lii na xam ne lii yàlla ko def ku fekke lii te du far du mooyu lii defu ko kenn muy boppam gumba gu nangaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jant fu njëloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax ju jee yal nañu am gis bopp du jee ci bëti xol ak yu kanam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppam akoon gis kile ab cër la boon buur yàlla mooy joxe mayam ku fekke kii te fekki kii texe ne fii ba feete kii may la ku yàlla maye kii des naa des ànd